Assalamu alaikum wa taala wa barakaatu samay mbokk Facebook maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñooma ma muy Sénégal avant tout maa ngi jaale suñu mag Cheikh Mouhamed Al Aqbu yàlla yàlla yërëm ko te dugal ko ci àjjana yi kawe yi mu nekk nit koo xam ne yàlla xam lu tax sax mu jël ko may ko sax mu toog nekk xalifa parce que bañ a tilimal deram ndax mag la te xilaafa lu nekk mun na cee xaj te mun nañ cee tilimal sa der ndax ku set la ci làmmiñam ci loxoom alquran rek la xamoon lépp lu muy def mu ngi ko teg ci farata ak sunna sharia moom la xamoon duggul ci kenn waaye ubbil na buntam ñëpp kooku may Cheikh Mouhamed Al Aaqibou yàlla yàlla yërëm ko te dugal ko ci àjjana yu kawe yi man de bëggoon naa yàlla may ma sa jikko jooju jikko ju rafet jum am kooku moom kenn la ci Médina keneen ki nag Baye mbay caam mi nga xam ne mu Baye Amadou Thiam suñu baay jooju nga xam ne moo jàngal mbooleem doomu Baye Niass yi tey xalifaam moo fi jóge mu nekk sama xarit nekk ku baax ku ma yéem tamit ci lislaam ndax julleeg naa moom ay yoonu yoon waaye julli naa la daf koy taxaw ba mu jeex ak mag gum nekkoon yàlla yàlla yërëm ko maa ngi ñëw ci beneen abcès boo xam ni tey ni ngeen gisee may doxee nii xam ngeen ne kontaanuma ay doomu sénégalais lañ doomu sénégalais yoo xam ne dañoo daw génn réew ma yaa ngi dégg waaye daw bi yëpp sant yàlla ay reeloo la ay xaqataay la ndax ñu ngi ci jàmm te fii suñu dëkk la te xam nañ ko miin nañ ko amuñ benn problème waaye li ma métti rek ma koy wax mooy ki mën a fen kii nga xam ne moo dàq fen ci àddina ba àddina amee ba léegi kii nga xam ne jaamu tukulóor bu bon bii nga xam ne mooy président Macky Sall mais lu tax nga mën fen fen fen lu tax nga mën ko dem ba am 60 ans yaa ngi fen dem ba am paase cinquante ans yaa ngi fen te yow xam nga ne fen yàlla du ko baale te yow ci loolu nga dëkk waaye heureusement raykatu nit defkatu lu bon yow yaay président boo xam ni yow yaay romb ci mbedd nit gis la taxaw gaare otoom saaga la soo demee ba wàcc yow yaay président boo xam ne yaa gën a xañaan ci àddina yaa gën a bon yow yaay sénégalais sax laay wax boo xam ne yaa gën a bon ci bon yi mais nag koo xam ne jaam la juddoo ci jaam yaroo ci jaam noonu rek ngay mën a mel yow soo taxawee naan kay dugg danaa leen jox six cent milliards yow ba ngay falu 2014 temps yi élection mairie yooyu ba ñu kii ngay def tournée économique ci réew yi xanaa da nga koo fàtte jaaroon nga kawlek Kaolack ñaata nga waxoon ne moom nga leen di jox xaw ma trois cent milliards ba léegi un milliard duggut Kaolack wax ma lan moo fa dugg ci Kaolack demoon nga Mbàkke demoon nga tàmba fu nekk nga wax fa wax boo xam ni ay milliards la jaajëf waay ñaa ko mu nice guy cool yeah nice alhamdulilah yow fu nekk nga wax fa ndar yow da fay dugal ay milliards lu ma lay wax deux mille quatorze deux mille treize sa tournée économique mais yow Macky lan moo la ma tax man mën fenn yow waa Kolda waa xaw ma euh, Kédougou su ñëwee Macky Sall di la wax ne la yow dañ lay gëmloo yow mu leen di gëmloo ne dafay dugal six cent milliards mais yéen ay dof ngeen koo xam ne deux mois moo ko dese nga jóge fi fu nekk nii bëggoo lu dul ay am Sénégal pour nga toog ki nga jiital xam nga ne mun dem ndax ku lekk ay milliards sooy génn lan ngay campagne lan ngay wax nañ waxante dëgg soo génnee lan lan nga war a wax xanaa doone man nekk naa ministère bi nga xam ne mooy finance ñaata at te yaa war a finance réew mi mu dox nekk nga fi budget wu xaw wala xaw ma war fa nekk nga fi premier ministre yow lan nga mën a wax nit ñi ba mu dugg ci seen nopp yi lan nga leen mën a wax lu du sàcc naa ay alal lu du tedd naa loolu rek nga ci mën a wax leneen mënoo koo wax Macky nag milliards yi muy tudd dëgg la su ko tuddee rek wax ko dëgg la ndax ah ñu ngi koy lijjante de waaye mu ngi dem ci ñoom ak sëriñ si fi nekk man maa wax loolu ñu ngi dem xaalis bi mu ngi dem ci moom ak sëriñ si fi nekk ndax naa fekk weesuwul ñiñ ooyee kilifa yëpp xam nañ réew mi nu muy doxee xam nañ réew mi métti gu métti ñoom ñëpp xam nañ ko ay nit rekk lañ duñ ay doom xolo duñ ay malaaka man mii di wax ak yéen maay caatu Cheikh Ibrahima Niass te suba yàlla mun na maa may ma toog ak nekk xalifa dañ waxante dëgg te boobaa lan ngeen di wax maa ngi nii sol sama jógin maa ngi nii di dox ci mbedd mi maa ngi dund di nekk ci restaurant yi loo leen di wax askay ak a bëri baatin ak a nangam topp ci gannaaw di la téye di la téye sa grand mbubb yi eh ma buñ naxante suñ boppam ah, liñ amee aadala la du xam-xam du diine du dara aadala la buñ fi bàyyi rek ñun ñëpp topp ci ñi ñuy sargaal ngir suñ maam yi lañ liggéeyoon loolu suñ bàyyi lañ liggéeyoon tey aw ma man lu ma liggéey lu may wan nit ba mu war maa gëm wala mu war maa topp nañ waxante dëgg dëgg dafa neex parce que dañuy dee dem seetal ki nga xam ne tey nitu yàlla aqan soo koy seede mu Cheikh Aqibou Niass mu soloor kenn ci làmmiñam te yàlla mu ngi ne soxla na ko yóbbu na ko moo tax keroog bañ koy ñaanal man a demam dama cee kontaan ndax koo xam ne amul kenn ku koy topp ci bàkkaar ci kaw suuf nit noonu lay mel sëriñ noonu lay mel sëriñ dëgg dangay mel ni sama sëriñ muy Cheikh Mahi dangay jàng di jàngale di dimbale doomu aadama yi maanu ci doomu aadama yi te loolu laa gis ci moom moom laa mën a seedeel ne sama sëriñ de mën naa taxaw ne moom sëriñ la ndax duggul ci benn détail duggul ci benn wax jàngale xam-xam tuubal ni ñi wër di tasaare lislaam waa léegi nag su Macky jëlee xaalis dugalante kook ñooñu ñu nekk fi toog fi ñu naan sëriñ si sëriñ si yéen dimbale leen ñu nañ wax ne kilifa yi rek aada aada bu fi nekk la du dara waaye makki dafa war a bàyyi fen gis nga kuy fen ba toll ci yenn yi war nga ko bàyyi te maa ngi lay wax na la billaahi wallaahi tallaahi xaw ma kan de mais sama xol nu mu méttee xaw ma kañ la ak fan la bis bu ma yàlla wane léegi yow bés ma gis la fu ma la gis daggal naa la sa ndey ja nekk ci àllaaxira parce que yow luñ la wax rek war nañ koo xeeb yow yaay koo xam ne président boo xam ne jël say askan di leen rey askan boo xam ne yow dañ laa créer assemblée ñu dimbale la yërëm la tege yërmande googu xeex ci ba nii man mii di wax ak yow duggal sama Facebook 2019 li ma mayee ci dollar li ma dawal sama oto dem ba Fatick li ma dimbale ci waa Kaolack ak li ma la taxawu loolu yëpp amoon yaakaar ci yow yaakaar rek laa amoon ci yow waaye te yaay ku yées ki yaay ku bon ki yow xaw ma de sa famille gisaguma ko ku fa baax gisaguma fu ku ko baax ndax doomu jaam ngeen te li ma lay wax xam nga ko xam nga kii am crise bi ñu koy yóbbu te yàgg na xam nga keneen ak keneen dama lay junj parce que ñoom seen yoon nekku ci waaye dama lay junj rek nga xam ko nga xam ne xam nañ la yow xam nga ne yow ba ngay bëgg madame kan ba nga koy bëgg muy jabaru Balde ki nga xam ne moo moom sa baay muy Macky Gassama lam la wax yow xam nga ko waaye jaam nii rek la mën a mel jaam nga rey sa askan yërëmoo sa askan Sénégal amoo loo ci amoo kersa sax amatoo ko kersa amatoo ko waaye billaahi wallaahi tallaahi ba sañu ñëw ci bés yi di nga toog di màtt ci sa loxo may wax na Kaolack ñu ne dañoo takkoon bunt Kër Baay Ñas imagine la Kër Baay Ñas moom dama leen di wax mooy dëkk ba nga xam ni ci kër sëriñ si moo gën a dellu gannaaw man maa ko wax man Baye Mbaye Niass jël sama responsable sama kër baay moo gën a dellu gannaaw ci kër sëriñ si foofu mooy kër goo xam ne amul yar